gis nga ko mu tas. Mm-hmm. doo mu sa dégg cusgan bi nii nii te ñu na si suuf si suuf la leen nekk xuloo xuloo xuloo xuloo xuloo saagante ba soona koolante suñu whatsapp ñu ne neen suñu pare si suuf la waayam do gis kenn mu egg si kaw di gaaru wale sa morom. Abat ok euh, danga ma tela a isi fii nag waaye dama bëggoon a ñëw mujjee foofu noonu. waaw waaye si topic bi leen nekk waaw. <laughs> cusgan bi laa ñëw cusgan bi laa bëgg a de boobu dama si bëggoon a mujjee because am naa si question hundred and ten question si choose gang ok Why choose gang baru uh, naka la commencé ak lan moo tax ñu ne choose gang choose gang ay boy, ay boy. yoo xam ne la comme dañ teel a fer teel a fer ñun moom ñun ñëpp ñun ñëpp dañ teel a fer man two months laa nampa man ñoom nag ku nekk loo nampa moo la ñoom mun invite gars ñoom ñu wax la ko so ñun dañ feel like ne comme ñun nampuñ Kadel mu ngi ree de <laughs> balaa maa aha balaa maa jàll kaateel ñëw na mhm. léegi gis nga moo tax xel xel mooy nit kaateel bokk na sam ñu ma bos si tiktok bi kaateel mhm. gis nga nit soo gërëmul nit doo gërëm yàlla moo tax bu leen ko gis de ak nonsense am bi yëpp lu moo nonsense yi yëpp billahi wallahi taala mun na maa tray di uti coow di uti ñoom balanka booy ñi ñoo nekkoon suma people la and these are still mhm. my people I love them ah waaye gis nga doomi aadama dafa am lu dee xewut su xewee rek yow da nga dee dellu gannaaw pam yeah loolu miinul ne like you hate them or things like that gi nga nit mm-hmm. dellu gannaaw daf dee baax nga toog nga seetaat sa boppa pam nga ne ñii dama leen like dama leen lool bugguma amaa gaay problème bàyyi ma cool ma dal yaa understand because kaatel moom nit la koo xam ne daf dee kaa <laughs> yaa ngi dégg mm-hmm. so moom daf dee kaa waaye man he is my brother mom lu ma fokki nakani yep manam mom ñu ci suuf <laughs> lu ma miin mooy maanaam moom ñu ci suuf moy manam mom dende wax su daf dé jël hôtel dima invite daf dé jël hôtel dima invite dima invite ay jigen dima invite man ba duggé way duma dé Yang dugga ya nga dégg dama dé ñow ba buntu hôtel ma nuyu ko ma ma démat suma dem suma yoon because man bugguma kuma ka Yang nga ngi dégg man mhm. manam mom dibi bundum la mhm. people don't know So di maa depuis la muy Touré ñu internet bi la ko gay xam waaye ñun dañ xamante depuis mm-hmm. bi ay yu ñu du nga laaj mm-hmm. ay two months ñii three months ñii one week Amadou Ndiaye moo fer one week spaghetti xaw ma gaza xaw ma ñaata jàkk xaw ma ñoom ñëpp daal ku nekk soo leen invité dina la wax ñoom ñaata mons la gaay nampa waaye man moom xam naa ne man suma mère bi tout mons la ma nampal man suma yaay ak lu ma nekk di gërëm nii yëpp fàtte naa wax loolu yaa ngi dégg man tout mons laa nampa soo ma feel like ne ok why not ñun ñu bugg a nampa ñoo xam ne nampuñ lu tax ñun duñ créer groupe femmes mu ngi ni di moom tam di seet mu nga ko kool nga laaj ko so su leen créé suñ ñu tuddee ko cus geng cus geng soo ko déggee mooy nampa gang mooy suusu kafool mool so soose suusu kafo mm-hmm. so ñun nag ñu créé cus geng bi so su leen ko créé geng la boo xam ne comme like nekkul ne comme like cus geng ñu bëri dañ ko dee xam nga dañ ko dee use in another way round waaye ñun tour bi mooy phone waaye ñun geng bi dañ ko créé rek pour like ñu ni neen ñu connect I mm-hmm. understand apart from joke mm-hmm. and everything ñun ñun ay nit lañ ñoo xam ne dañ connect ñun we chat every day xam nga dañ dee meet yow da nga dee gis suñu vidéo dañ dee dajee mm-hmm. ñu chill and everything yëpp lañ dee def because then feel like ne ñun ñëpp ñu ngi si Europe bi te ay Gambien lañ te nit ki nag koo mën a àndal ngay demal nekkul ne nit ki ànduma kii rek kii nekkul suma waay wala kii baaxul or things like that Gambien bi nag ñoom loolu leen dee fail to understand ñoom soo àndutaa gaay rek pour yow da nga leen bañ yow bugguloo leen fekka du loolu nit ki mënuloo àndaa ñëpp Mhm. nit ki mënuloo ànd ak ñëpp. loolu mu tax ku nekk dafa am mooy olof lu ndax gaa yi si biir gaa ñi xàmmee si waa ji yaa ngi understand gaa yi. Mhm. Mhm. si biir gaa yi si gaa ñi nga xàmmee si waa ji. mooy no matter how big we are. mais dafa am ñoo xam ne ñooñu ñooñu la la yàlla dee booleel te these are your people these are your personal people soo jooyee ñoom nga dee gis soo amee problème ñooñu nga dee gis su dara xewee ñoom nga dee gis. lu munti xew ñooñu nga gis and these are your people so man noonu la fa dee demee man nekku ne comme ñeneen yi like ma gars yi or things like that waaye ni la ma yàlla booleel so ñoom tam si groupe bi si tiktok bi fii tam am na ñeneen ñoo xam ne yow Babou Kayateh am na ñu la yàlla booleel ñooñu nga dee nekkal always sa life bi. of course ñooñu la yàlla booleel waaye loolu miinu mm-hmm. ne man damaa am problème. Mm-hmm. ok so man ni la ma yàlla booleel te manaa gaay ñii ñoom manaa gaay maa ko fi si biir life bi screenshot ko nga denc ko wala ñu nekk si lay bi ñu denc ko ñii mën naa gaay ba dee mën gaay comme like ba dee dee laa wax dee ñoom xanaa ñoom ñu bàyyi te xam naa ne ñoom duñ bàyyi because man am na lu ma jotee gaay ñu ni neen ñu ñu jotee suñ mënoon a bàyyante bàyyante ne waaye ñun mënuñ ta bàyyante muy jeere gisul bu ma dee post di always naan ko jeere suma artist suma artist like Gambien ni like dama ndeeree ñoom du ne understand jeere is a little brother to me jeere si cus gang bi la bokk yaa ngi dégg ñoom dañu understandut gere si ñun la bokk si ñun gere is part of us ñun we don't talk about music we don't talk about nothing we talk about we yaa understand man su ma la playeree fii man a gere suñu voice music yow xam naa sa life. bi ñëpp ay daanu di ree comme nekkut ñun du ñoo wax affaire music ñun we love each other ñun dañoo waxtaan man tiktok bi laa nekka nii comme xanaa amuloo man lu def nii si tiktok nii sometimes ma ñëw naan jere nii da ngaa gis jere booy waaji waaji because moom bugut nit yi mere ma xam na ne man dama nekk di kaf bro mhm. man munuma munuma dëkk gambien ba pare bro ma bañ gambien musicien loolu su ma ko defee yan naa dee dugg safara waaye mhm. gambien bi si boobu ñoo understandut nit dafa am ñoo xam ne ñooñu sa ay waay lañ yaa understand so man suma ay xarit mooy lu ma la wax fii léegi léegi man suma ay xarit I can die for them man suma dee bugga nit dama la lee bugga ba dee fokkinaas bi fokkinaas bi dugg na Kéba Konté ok comme gars yi maanaam yu bay interview yi ñu fi def du ma wax interview sax waxtaan yi ñu fi dee def uh, dama ko dee dog nag yu yeneen site yi dama ko dog ma dugal ko si YouTube bi. ok so gars yi uh, ñoom tamit ku bugg a seetaan lii after ëllëg uh, mun ngaa dem si suma YouTube channel bi Babou Kuyaate rek nga subscribe foofu noonu di nga ko seetaan foofu noonu. Uh, please subscribe, Len for no. Right, right. Thanks for the viewers. Now, guys, you over again at uh, 300 and something people are watching. Yeah, yeah, so, yeah, yeah, yeah. People look out. You learn the game, Dylan Santa. Yep. Bilai, bilai. The you know, because you nyep you get by and solar. Europe, bit of a Of course, atatay Sunday la. So okay. mota na ma mabuga ko profit or mo lefen. Ba badu ñu ñong tamin. Uh, so ñewé ci uh, badu euh ñi di wa badu comedian la. Ah mm. uh, ñi ñu ne badu dina dara dina ko naxari saw daf ko def comme comédie ya. mu wa soxlaam mhm. so badu yow yow affaire yi comédie bi li loo xam ne euh, natural la si yow o loo xam ne rek yow yaa ko force sa boppa ok euh, <coughs> bro man géy laa sant géy njooro ok géy njooro laa sant ok man comme nu ma la ko nu ma man suma suma family is big man some family I ay I wake up. Yeah, I understand I comedian. man some I some I moo ñu gën a foni ñun man some I don't talk nii rek pam ñun suñ kër laajal ñu ko xam ñun suñ kër dangaa Tanga foofu soo ñëwee doo ñett dangaa ree rek plus some I jógee si ndey si man yaa understand ñun noonu lañ mel ñun dañ ju dañ jógee dañ jógee foo xam ne famille boo xam ne surtout suñ famille compound in Sénégal Gandiaye foofu so fa demé bro ku la ku gëna a fuli sa morom da nga nan ki la da nga gis suñu oncle fa joggé fi taxaw wax dara lu fone suñu mam joggé fi wax façon family bobu façon family bobu len yaro comme like funny happy Idris suma da mu ngi ni mu ngi seetaan Idris Gueye you know suma bro mhm. ñoo boka dat you know mom tam mu ngi seetaan fi mu ngi jamani Idris big respect yeah suma da la you know mom suma suma mhm. dread la you know so ñun family boobu leen jógee ñun dañ jógee si family boo xam ne dañ jàng arxuraan géwél yaa understand Family boo xam ne mooy loolu daal comme famille bu la so loo loo xalaat mu fa loo xalaat mu fa so looloo taxit man comme like man music soo ma indee si site music man dama dee sing duma ko dee forcé is in me man su ma su ma wëyee da nga naan ah kii xanaa musicien la or things like that fekk loolu si man la yaa understand Mm-hmm. so loolu ndey thanks for the gift ndey sa yaram tàngana de man de yaramam tàngana de <laughs> guys ñu ma ne nga di may gift yëpp thanks a lot man jërëjëf yeah yeah yeah so mm. léegi da nga gis ne man family bobu la jógee man dama wëy man dama wëy dama théâtre dama kaf dama fo dama rëy man façon nit boobu laa nekku ne comme like internet bi la dee ñoni rek ma wané ni rek pam after ma dem man non la mel man boy ñu ngi nii ñoom Kéba Kéba maa ma kam mu Munich fi laj ko wala ñoom Spaaki ñom boy yëpp Gaza, name it. Man, former gis dangare, kafore. And shout out to all the people like Numa de Biggie, waa Stuttgart suma gars yi for foofu ñoom Peace Boy ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn everybody man, big up yep. so this is me lii si man la ok so coming to me, moom is natural see you. it's natural bro duma duma binda dara. ok ah beneen bi bu ma ñëw but boobu uh, Badou nga nekk see internet be. Yena sa dinga digger you positive, yena sa dinga digger you negative. Uh, recently, mange follow some ah, uh, buguma wa trombe fi project ko lifin Uh, why kom ko ham na like sodan dara torop why <laughs> tay gis na yang ko hawa jeku tuté. But no no de muna respond comme nit ñu la dee wa lu mu négatif noo fa dee mun a lifine noo dee mun a contrôler sa boppa ah uh, ci Tiraram, tiraram a Belão aqui, farms, farms music live. Uh-huh. Farms sometimes when they did do inanda. So the guy is the body call him, no boy, boy, why boy, bang, mu seda boy, nyanala boy, please. After the mother raise telephone me. Mana ko bro, mana ko, mana ko boy, yo man, su fekkee ne ma lii dama mer, yana ko yan naa dee, dama ko ko dee wala farms. waaye comme suma boy ñoom Kéba ñoom Gaza ñoom Arms ñoom Diagne booy yam xam nañ ñoom Naps ñoom booy yëpp nanda nañ gars xam nañ nga xam ne ban façon content laa nekk di use ñoom de noo mhm. yaa ngi understand man maa mhm. nekk doomi adam boo xam ne comme like man dama xam jikko gambien waaye ñoom understand uñu de xam nga nit moo xam sa jikko bare waaye danga foog ne koo xamul sa man dama de xam nga soose lu ne xadaa ñiroo mhm. nkee xadaa ñi le billahi wallahi taala so moomu yàlla ko koy ikamul xadaa ñi le ite bu ko fen fiil bi ko itel tawta ikamun ke man noonu laa ma dama leen dee xadaan yi dama leen dee dama leen dee merloo because man dama jànga loolu comme like nit kuy teel a mer nga xam ne moom daf dee mer xam nga moom balam lan la nit kuy teel a mer moom balam di only thing lu mun a def mooy saaga sa ndey because yéen ñaar you people are not in the same moom du la mun a def dara lu mu laa mun a def mooy saaga sa soo saaga sa ndey boobu daf dee foog ne moom su saagee sa ndey yow di nga dellu gannaaw mm-hmm. léegi man soo saagee ndey si laa dee gën a a ñëw because xam nga lu dama wax suma yaay already dama ko ne internet bi Gambien yi laa ko siixal ak sénégalais yi ma ne ko te yow xam nga leen mu ne waaw ma ne ko soo soo gisee ku ma taf mu saaga ma ma ne ko bul meer suma yaay moom laa njëkk a wax pour si side boobu mer bi moom mu understand xam nga kenn duñ saaga sa doom nga nga nga bëgg. Mm-hmm. waaw moom dafa understand moo tax moom vidéo yi du ko gis moom su ko waree gis sax daf koo skip mu dem. su gisee suma xar kanam sax mais bi sax mais mun na koo sen wala mu laaj ma kii lu ma wax balaa mu seetaan vidéo bi soo suma booy ñun gang bi ñun ñëpp façon jikko boobu lañ mel ñun noonu lañ mel da ngaa gis ana gis te baa ngi dugal Gaza Gaza di tooñ di ko tooñ waajooyu mm-hmm, mm-hmm. Keba tam the same thing arms the same thing waaye ñun we don't take that personal waaye Gambian? bi Sénégalais yi dañ dem ba xam Gambian Gambien bi daf dee teel a mer loolu moo tax ñoom suñoo dibétaa ñun dee win os biko ñu ndende télé mer nga diga ñu saga ndé sa dama bro bro bro bro nit dañ passé eh, lolu yeah nekku nit ki nga so bëggé ñu respect la motax man dama ko dé wagay moy man babu mën na saga kan ndey jambour ci suuf mën na saga ndey dama dama kacior dé kacior bu bon la mën na la bindal comme ça ndey private mhm. yeah man non la mel man mën na buddi sa ndey mer ñew ci kaw di kan buddi suma gaay ñu ne lan moo tax nga saaga kii ndeem léegi da nga xam gisu loolu ma wax si suuf yow loolu ngay wax gisu loolu ma si suuf waaye yow sa bos mooy e feeñ waaye man sama bos du feeñ because dama leen mhm. dee jaay xel yi xel la nandite laa leen dee jaay bu sénégalais ak gambia because mix la soo ñaari laa dee jël boole leen ma jaay leen ko so moo tax man ay mbiri gambien dara su ko xewee su ma ñëwee ma far benn place faral fu ma far because yow soo faree fu ma far wallahi doo daanu because man dama nekk ni koo xam ne du ma mer lu ma min du ma mer mooy internet dama ko mun man suma mer sa ci suuf lay ci suuf lay wacc whatsapp ma wax la luma la wa bem saf su la ne screen recordal dugala ci bir amna bena gambien bu ko trayon do ko laaj way do ko ñaare laaj daf ko tray tray tray tray tray mu ñew ma fe mu ci suuf mana katel sa mbir bobu ñoko rek lewon laajal katel mhm. dama buddi ndeyam buddi bayam buddi ndeyam buddi bayam rek dafa jekki jekki bam tit mu ne ma kon yow da nga dé sagande manako no duma dé saga ndey lolou la ko manako no duma dé duma dé saga bawu bawu ko de internet bi bem daj ful gambia bem daj manda manda ñan ñan la mi ñan comme ñan ni ñan jël saga ba fa sa ñan comme saga ñan dam ko dama mu hmm. saga billahi neku dama ko neku ndamo de hmm. gambia bu dof dof comme nga nga bëgg computer man ay saga ndey deug deug billahi suñu wajé su whatsapp suma saga sande man saga la fa la saga suma saga so bëggé haru mën nga dem sa nga haru té man dama saga ci sosé saaga si olof saaga la si pël saaga everything mun naa lu gars yi di def. waaye dafa am loo mhm. xam ne baaxul dafa am nit ki foo bëgg a dem. man ay kilifa ñoo ma dee ay mag baawu ko yàlla su ma la waxee lii ah eh, bëgguma wax lii woon de waaye Sira sorry for saying this xam naa mu ngi si live bi mu ngi America ma suul suma ndey kii système system xarit système laa la wa system. mu ngi léebo léebo mu ngi seetaan man suma vidéo ñoom ñu call. système su eewuwee te gisut man ba duggee dugaluma video, du dee content I swear to the Holy Quran. I believe. ay dañ ma call ni ay nit dañ ma call ni ma ngi tëral l'hôpital ni de way ba duggee sa benn video la gis wallahi azim man musuma foog ne comme like nit dina buggee nit nonu man musuma ko foog suma aduna moo tax comme like man tiktok bi man dama dee def video people nan ma beu ba du ma ngi comment sa nangulo ma reply back baabu man su ma dugalee vidéo jeexal naa duma ma dee xoolaat lan laa dugal. man noonu laa moo tax moo tax du ma dee du ma dee du ma dee reply comment ñoom duñu dee understand because man dama dee post ma vidéo postal naa leen jeex na man fàtte naa sax lan laa fa waxoon. soo dangaa dugga yow mun ngaa dugga suma vidéo yi nga contrôle comment nga xool ñaata nit laa dee reply dam dee ma dugga rek ma reply pam génn na jeex na. soo ñi gën a foog ne baru reply moom reply du loolu de. man ma dut nek si tiktok bi di am time di hol kan moma defal video kan moma saga kan moma li nay man everyday ñom ñu ngi def loolu man everyday ma ngi tray lan la wara a gambien ni ba gambien ni content di big di ree moda man nak ma da nga gis nit ma jotté ni si tiktok bi mom muy muy continuer di ma def lu bon man may continuer di post ay positive video nit di ree mom ñu faté bosam so lo euh, loolu la ko demee baaw waaw euh, bala ma live bi ma doon sa mère bi Uh, man sila laa ñëw na mane dega-dega. Uh, man Tay. How ma woon badu waaye tey laa ko gën a xam xam naa lu badu am na yoo xam ne du si tontu sax uh, waaw parce que waaw wax na ma yu bari duma ko wax gis nga ki nuñ la yare yu baree baree bare mm-hmm. noonu nga mm-hmm. so loolu wax naa ko sa mère bi everything yow la so it's very important na ñun ñi nga xam ne ñu ngi nekk ñu ngi am ay doom ñu yar suñ doom yi bu baax a baax pour in case ëllëg hmm. dinañ mun a support society bi dinañ mun a def lu positif si society bi waaye suñ deful loolu nag society bi dafa dem bon torop torop torop waaye Badou ok ñu ñëw tuddiwaat ah, gis nañ Badou comme comme waxoon nga ko fii ah da ngaa gis ne am na loo xam ne eh, yow but su fekkee ne loo xam ne sa danga ko wax in a comedy way loo xam ne mu ngi affect society bi waaye loo xam ne in a comedy way la soo ko defee sa loolu ah, ban na nag ban façon feedback nga si dee am for example léegi su fekkee ne Gambia something happen na eh, something happen na foofu laaka naa soose foofu something happen na foofu noonu yow soo ko waxee waaye nga waxee ko even in a comedy ñeneen ñi seen respond the family can do negative towards you because soo demee si comment comments, danga ko dee gis waaw yee ban jàngate nga dee am si loolu ak lolo ban façon taxaw la la day jox mo dee riif baayam mm-hmm. man soo ma gisee ma riif comme négative comédie rek xam nga ma négative comédie négative comédie da xam ne dama am jot dama am time man noonu laa mel man du ma dee riif bàyyi loolu yow man négative comment ni because ba nga man ba façon nit laa Gambien yi loolu lañ war a jàng nag diga. digga sorry de to use this word waaye Gambien dinañ war a jàng sooy xulul xulul ku la sut. Mm-hmm. xam nga lu ma mën si loolu. yow soo nekkee TikTok bi comme like sooy hulu. yaa am followers eh, maybe two hundred thousand people following you. Mm-hmm. bro soo xuloo damaa nga xulaa ñu am three hundred thousand four hundred thousand. Mm-hmm. man noonu la mel man su di hulu diga diga. digg dama dee bëgg a Gambia comme like kan moo fa ëpp followers. malaante ko nga gis ñu ne eh ak kii Badou Gueye ak kii Badou ak kii boobu daf dee nee waaye Badou Gueye ak thousand followers bro thousand followers yi hundred followers yi ñoo ma dee saaga borom account yu diis yi duñ ma saaga ñoo xam ne content creators lañ. dañ mhm. duñ ñoo xam ne comme like followers yu ndaw lañ amee ñoo ñoo ma dee saaga soo ñooñu dañ nekk di saaga pour langaa musuma kaw pour ñu notice ne Badou mu ngi jotaa kii te man. mooy lu ma dee su man suma ma bi dafa dem màkka aji su ma page bi dafa ko sanga set moo tax man soo gisee coow lu moo réeree du ma dee jël nit nataalam post ko su ma page ko dee seexlu because laa jox bugguma laa jox crédibilité boobu noonu booy fiilee like ne ok Badou dugal na ma account am ñaw ah man lii laa ay Badou doo tontu kii Badou tontul kii yooyu yëfi dof la yëfi yëfi yëfi dof man loolu laa dee jàngee loolu yëfi dof man soo ma gisee ma tontu rek xamal ne ku ma tontu ah Badou tontu na ko am followers dema nga ko Mhm. man dama muus bro man dama woowa muus. Mhm. man ay ñoom gisul ay ñoom esti ay ñoom attaque ay ñoom président Baro ay ñu ñu siiw ñu ñu réer yi man ñooñu laa dee bëgg comme like ma dalantee gars te ñooñu du ma mës a dalantee waaye man ñooñu laa dee bëgg waaye ñooñu seen fans yi ah bro nag dëgg ne yàlla ñooñu moom dama leen di defal vidéo rek xanaa xanaa ñu leen ñuy gën a mel ni moo lee muta mool bee fenkelal ma defaat vidéo ni moo lee muta mool bee fenk ma defaat léeg ñooñu laa dee dajal si programme bro ma meeti taxaw man. jëlee la dof taxaw ni ñëw ofama red bull man dama ñëw taxaw maa keba wala manaa bool ñëw taxaw ni bam ñoom ñu ñëw ofama red bull ñu ne ah bu ko doggee jaari la video, video te man dama leen day gis le ñoom ñoo dee ñëw ofama red bull tegal ma ko si table, bro bi ko ñun ñun fuñ juddoo la ñun nekkuñ ay ragal nekkuñ ne tiktok bi moo tax ñuy wax waaye man wóor na Maolana Cheikh Ibrahim suma moromi góor mun loo maa xootal mun loo maa jaay doole mënuloo maa gis real life nga ne ma ay eh, badu nangaan badu doo ma ko def bro doo ma ko def because su fekkee dof la fii Europe la ñu ñëpp a dof soo yow sooy ñëw yow kenn yaay ñëw yow doo ñëw groupe yow su fekkee ne yow góor nga yow gis nga ma kay ñëwal yow kenn manaa yow rek yow nga attaque ma léegi yow soo ma attaqué di nga xam badu loo indaale mooy xale lu ne badu loo indaale ba léegi yow ñëwal nga attaque ma. Mm-hmm. man loolu laa dee bugga waaye bugguma comme like nga toog si internet bi di buddi ndey di buddi ndey. Yo, you are with your gang ok man always fu the man dem suma boy la Legi yo xam nga man du ma dee laaxu Europe fenn man Europe programme bu nekk maam fa fu nekk maam fa gisul online am there everywhere man fa because dama xam suma boppa man xam naa ne man du ma saaga ndey nit du ma tooñ nit man am doing comedy bro so Gambians have to understand ne badu dafa comedy badu neku nekkuma fi to let down people wala saaga yaay jàmbur wala disrespect people man I respect everybody's family ñep sen family la respect man sen yaay la gëna respect ni ñom because 9 months is not 9 days bro so man yaay jambour ku tok gambie koku deful ma dara bro waruma nekk di saga yaay jambour bro so man lo motax fuma dem dama di anda suma fit because xamna ne saguma yaay jambour saguma ndeyam te ñi yeb ngay gis gaay di ma méré ñom wu ma sen problème yi bopa de problème nit ko xamne koku mu ngi happy mu ngi naw di catch fly open fly mu ngi make halis di tabax kiram gambia di make family am proud yow problème yi kooku nga maa meree man ba Gueye bro am na yoo xam ne xel moo ko mootali soo man dama leen dee téye ay dof moo tax dama leen dee ree di leen xajaani di ko continuer di ko continuer di def di def léegi man na lu dee ñaan yàlla su ma julee loolu laa dee ñaan always dee ñaan yàlla yal na iblis mu tëj mu tàccul kenn benn jimkat la wala jimkat wala koo di doon yow fekk ma fu ma taw rek nga ne ma Badou bët bi suufam loolu kay man maa ko ñaan gambien bu nekk yow fekk ma foo taw rek. because nekkuñ ne about threatening or things like that de waaye ñun ay doomi séeréer lañ buroo ñun duñoo ragal ñun nekkuñ ay tàppet nekkuñ dara yow soo ma gisee kay ba nga taw maa suma boy. ñëwal rek nga ne ma son yow yaa defoon li yaa wali defal loolu nga ñëw nga attaque ma Legi yow su boobu paree after soo pare di nga ñëw toogaat si internet bi nga wax vidéo because man xam naa ne moom ñaanu ma ko yàlla suñu borom de man ñaanu ma ko yàlla suñu borom de yàlla bu mu am de waaye xam naa ne Gambien bu dof doflu wala Sénégalais bu mhm. dof doflu man nga gis ma ba duggee nga ne ba du nii man dead man walking la bro man na ma dee ba pare I swear to the Holy Quran xam nga nit ku dee ree rek ree ree ree ree ree so at the end waaye man ku ma ku ma jékki-jékki nga ne mbiri jàmbur moo tax nga man ngaa lii bro foo ma gisal lii ma waaye xam naa ne ñun ñaar moom xam naa ne ñun ñaar suñu gars yi peut-être dañu lem ñaar ne ñaari niiw ñu ngi dellu Gambie man loolu laa man façon xol boobu laa am man soo soo bëggee jël coow yi jàmbur man mun naa la jox bii man noon laa mel coow yi jàmbur ku ko jël man mun naa la jox bi man noonu su ma am naa xol boobu am very I'm very cool, kind, and everybody. Why? man bëgguma ku ma jaay doole bëgguma ko. ok waaye Badou euh, comme yow ñëpp xam nañ ne am nga talent bi si comédie ñëpp xam nañ ne mun nga Why? waaye Badou euh, nda mu ngi si sa plan si you know pour nga nga nga toog nga create something li nga xam ne dafa nekk maanaam euh, ay ah comédie thing la loo xam ne dafa du mun a nekk rek comme ay sot si ni si internet bi ndax plan nga pour def you know big things like that palaanoon naa ko waaye su ma takkee jabar damaa bàyyi lu tax waaw because dama ko bëgg a bàyyi because dama uh, feel like ne Gambien bi suñ jigéen yaa dee support ñoom rek a support bro te dëkk boo xam ne booy benn place bi rek a support beneen place bi du support booy bro Gambien bi booy góor yi booy suma waa ji booy seen xol yi ñoo leen di sonal. very du ñëpp nag am na góor yu baax góor yu correct waaye gi nga man su ma duggee suma followers yi ba xoolaa wala ma def vidéo ba ma xoolaa. Mhm. bu doon jigéen mosuma saaga si internet bi góor rek. mel ni dama nampa gaay seen jabar yi wala dama nampa gaay seen cepe yi am lu ma leen def man problème boobu sometimes dama ko dee laaj suma boobu ndax ñii dama musa nampa seen cepe wala dama dama musa ci seen cepe wala seen cëppee dañ mus a gisuma mën la man loolu laa mënut a understand yaa understand man jigéen yi rek ñoo ma like man góor yu ma like yëpp suma ay waay lañ yaa understand jigéen yi moom jigéen jigéen musuma saaga si internet bi ni ki moom sooy woo waal dëgga man mhm. jigéen yi Gambie ñu ma bëggut benn benn la mooy gaal Galsi man Babi Galsi ñoo ma bëggut <laughs> because man ku ku ku wàccewut boppam ni nga wàccee sa boppam ema suuf bi man mënuloo mhm. bëgg a Badou This guy, I really hate him. He's like this. He's arrogant. He's like this. Yeah, because you are not a Gambian. Me. Again again and Genana, again. Genana, genana. Yeah, echo the mute as well, Guinea. Okay. Wow. yaa ma dégg mu ngi baax ya waaw man soo nekkee Gambien di nga ma like yaa ma dégg mu ngi baax ya mu ngi écho bi man soo nekkee Gambien di nga ma like yaa ma dégg mu ngi baax ya ok hey eh, guys comme noo leen ko xamee rek ah, ah sa su nekk dama isi fi benn ndaanaan ah, tey badu ah, badu lañ am badu gi ñëpp xam nañ ko badu muy nekk mu nekk ndaanaan boo xam ne senegal euh, Sénégambia bi kenn du ko introduce léegi euh, yàgg nañ si waxtaan bi nag euh, waaye ñu continuer ba du tuuti rek si foo nekkoon. waaw lu ma miin mooy <clears throat> xam nga wax neexut ñoom ñu bari dafa am fu mu dee fu mu dégg gis nga su ma nee jigéen yaa ma gën a like man dama bëri jigéen ñi ñoo ma gën a bugg a France. waaw balaa ngaa xam loolu noonu ah, man bu ma demee Sweden laa ko xam ay sweat to the Holy Quran man Gambien moo ma jëlee fii nii Gambien te loolu yëpp TikTok laa amee connexion bi ak Gambien broda a oncle moo ma jëlee fii jëndal ma flight moo tax dama lay wax gars yi try leen. ngeen am mhm. ngeen try ngeen am dara ba TikTok bi ngeen di mun a toog di wane ok man am naa lii. Mhm. guddi na de gars yi commencé nañ de. Choose ok euh, guys. Eh, waaw loolu la waaye comme lu ma wax rek please ah, maa ngi ñaan ñëpp na na gaa yi. waaw la dégg bu baax. naam gaa yi ñu ngi ah, école waaw ok lu ma doon wax mooy <clears throat> waaye bàyyi la affaire yi girlfriend yow di eh, lu ma nekk di wax mooy mm-hmm. ah oldi jigéen boo xam ne ba bi gal nga nekkuloo Gambien yaa ma bañ waaye Gambien jigéen dëgg jigéen dëgg dëgg gis ba duggee nga bañ you will not call me ah this and this this is tax xool leen de ñoom ñëpp la xale yu jigéen yu nekk fii Europe bi baab yi gaal si ñoo xam ne dañuy teg seen wéy yi ba fii foog ne comme like ñoom du ñoo dem fële garaw kër ñooñu rek ñooy nekk di wax shit about me ak góor boo you ne comme like yow sa xol neexut yow mënuloo like Badou Gueye because man a happy man man nu ma ko dee forcé yaa understand te ini ñëpp jaama nag nekk Baye Fall respect ku nekk man amul lu ma faytalul fii Gambien moo tax Gambien dañ dee teel a fàtte bro man su dee baag bi dama taxaw ma faytal Gambien. Mm-hmm. boobu kee rek kis ma faytal Gambien. man loo xalaat faytal naa Gambien so Gambien you cannot make them happy bro tey da ngaa def dara ñëpp àndaa yow ah tey moom am with you bro. nga def dara elect bro so that's why you will know ne ñii ay nit donga lañ. tey mm-hmm. nit ki nag soo ne you will make everybody laugh bro naa feexa ngay doon mënuma make everybody happy. yow sa problème if your problem is bigger than my joke bro I will not able to make you happy soo loolu la rek waaye man négative mom? négative moo ma dee pousse may gën a dem billaay walaay talaay dama ko dee sukar naan. ok waaye euh, Badu nak sa relationship ak euh, sénégalais because yow dem nga ba ñeneen ni eh, soo waxee si Sénégal you know eh, response bi daf de nekkal loo xam ne yenn saa mu nekkal lu négatif ñu xamut eh, sa relationship ak sénégalais. because Sénégal yu bari tam ñu la follow te ñu la bëgg trop te dañ la dé big up la bëgg akamale la bëgg sama mbokk yaay yi ma ngi leen di big up di leen sant di leen gërëm di leen fekk ku nekk fo nekk di leen jox seen loxo di leen wane suba la magal, bi magal bi ma ngi munik suba di leen ñaanal jamm ñom ñëpp sénégalais yi awma gaay seen fay parce que ñom si ñom la bokk man suma yaay sénégalais la 100% dégg nga ko num mu lay laakee olof suma yaay sénégalais la 100% sey moko indi ci gambia sénégalais la 100% so man sénégal ëppale wuñ ma fa tous tas because man suma nijaay yépp ñu ngi sénégal mbour dakar ganjaay kaolack so man dama ciosano fofu non so moo tax sénégalais man dama leen di jaaxal ñom comme lay ñom mën nañu wax gambien ngay wax ni ñu na gambien nga bu ci wax gambien bu ci wax man bu ma waxee ñom dañu xam ki doomu sénégalais la doomu gambien bu ko neexee wax ci suñu problème moo tax man munaluñ ma dara baawu man sénégalais yi comme like you ñoo nekk fes ñu ma post yi gars yi seen télé yi not even gambians man gambia seen media house yi media house moma ma post Moi eh, ñi jolof jolof entertainment ak Watson Gambia. Baro ñu defoon mbalax bu neex boobu waaw Watson Gambia ak jolof they post me and J waaye su basalo yeneen gambien li fi nii nii du gën a fere dendee siisu gambien bi dafa mun a siisu gambien bi daf dee bugg a indi nit pour mu compete la pour yow mu daaneel la fekk ñoom du ñu understand ne lii game la game bu yaatu la gis nga music music -hmm. entertainment dafa yaatu ku nekk da ngaa béy béy sa waar Babu ku you are waaye comedian, you are funny. Badu is a comedian, is funny. But you don't have to try ngawara indi ñaari motax man képp kuy comedian ngay def lu rafet dama dee ñëw nga nekk suma waay bi ko dama dee bugga looy def man ñoom ñëpp ñoom ñëpp suma ay waay la dama ne dee encourage nii yaa nii du gën jaar na waaye gambien bi moom problème bi mooy moom dama foog ne suma ma posé badu rek badu posut ma rek badu mooy dem man duma dem bro ñun ñëpp mënuñ ta nekk ay comédien ñun ñëpp mënuñ ta nekk ay wéykat dafa am ñoo xam ne mhm. ñoo poos kat ngeen di leen di poos moo am ñoo xam ne comment kat ngeen comment leen yéen ay comment la leen yàlla bindee comment leen mhm suma suma follow de duma ko follow ana ki moy kan suma follow duma ko follow bro sénégalais de don dou deug duñ ko dé mhm. def sénégalais yi billahi wallahi taala suma fulo wasi 75% à sénégal 25 bi ñoy gambien ok badu ok fi bëgg na fi ñëwaté ni because uh, so gisee gambia uh, especially ñu nekk tiktok bi fi waaye wow. ma gambian in general ñun comme yow tey noo meloon ni su fekkee ne yow am sénégalais nga euh, everything comme Sénégal nga jóge everything nuñ laa jàppale Gambian bi fekkut ko fa lan nga foog ne lii moo dee cause li bro mooy compétition bi rek <laughs> soo ma foloo du ma la foloo mooy lu ma la nekk di wax compétition bi rek dañ bëgg affaire yi comme Gambian bi da gis dafa compute kii ak kii xam nga léegi yow moom dafa bëgg yow nga bañ kii because yow man bëgguma ki ñoom foofu leen toolu ba léegi. yow da nga ko dee gis suñ music music side bi sax. yeah yeah suñ music side bi sax mu ngi fa. da ngaa gis ne da ngaa wan man am na tey ku ma defal lifin sax ba di ma saag laajte booy bi na ma comment man lu nekk la ma dee bind su ma la wanee suma suma suma musique xam nga suma TikTok dama ko def loo xam ne. waaw mm-hmm. ah, waxal gars yi bu ñu yàkkamte léegi tey rek ma bàyyi la. <coughs> man de léegi tey ma bàyyi la gars yi bu ñu yàkkamte bu ñu yàkkamte you know. Uh, waaye ok after the guy. yaakaarante bu yaakaarante. ñoo xam ne bëgg nañu. waaye ok after the guy. Uh, after bëgg naa comme ngeen ñoo ig ñu uh, bëgg a sànni dara si uh, Badou after ñu nekk ñu bëgg a laajte something ñu laajte. ñu bëgg a sànni dara si Badou after ñu nekk ñu bëgg a laajte something ñu laajte. waaye. nga ekowaat ok. guys please maa ngi leen a ñaan ah, ngeen neen si suma youtube rek subscribe Babou Kuyaate ah. maa ngeen neen si tiktok profile bi fu mu nekk rek please ah, am na youtube link baa ngi fa mu ngi nekk black soo ko pressé di nga dugal si youtube rek nga subscribe luñ fi mun ti def comme every saturday dama dee invite ay artist o benn ndaanaan boo xam ne Gambian la o Sénégambian la rek ma invite ko fi waxtaan naa moom so lii every weekend lañ ko dee def so please maa ngi leen a ngeen si youtube bi ngeen subscribe foofu noonu ok kay dinaa isi pour ngeen ñëw waaye amul problème war naa ko dinaa ko si kanam tuuti eh, ok ok mooy ñun Gambia dañu war a dañu war a buggante bro du bàyyi force pour buggante de waaye dañu war a buggante ñu xamante suñ différence ñu xamante comme lay comme exemple ku nekk mu respect sa morom Moy jaamal si lu yi de leadership of zainam grenze blay mu respectier di andan Ya understand because niki, ki nekku ne lo buga rek lolou la nit wara a because of man buga naa ki lolou minute ne comme like yow li nga yow lii nga man fofu sa buguma fa wana cumbax de way is bah, dafa ba sa pour like ñu wasi touti Moy mhm. man people man fuma ma de dëkki sosé la judo bundum suma boy yuma don andal ñep ay sosé len man ma dégg soose yaa ngi understand man dama ko dégg nekkul comme like some some olof su ñu laaka soose da ngaa gis ne ela eh, man ni ka kaw fon bu ka seniya yaa understand eh, i kaa loon dafa ñun musur wàlle bi da ko dee xam daf dee génna mm-hmm. waaye man fuma ma juddu ay place yu ma doon plie ay biyankeer ñoom sing fc ak yooyu mana boy la man suma geng bi boy yep ñun dañ mix and blame so ñun amuñ amuñ loolu ay tribalism ay dugana fede jaarda fe ñun suñ geng bi soose ñoo fa soose pël olof ñun ñëpp yaa ngi understand so nañ gaa bàyyi ay yooyu noonu comme su nit waxee dara ñu ne la da nga tribal da nga lële da nga da nga lële loolu du àdduna ñun xamuñ loolu noonu man fu ma juddoo ah xaw ma de waaye ñun fu ñu juddoo bundung man su ma koñ fu ma maagee bunu boo ñun xamuñ affaire yi tribal lii tribal lii tribal ñun ñëpp a bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk a bàyyi na gaay bàyyi affaire yi musique fu ñoo dugalee about yow kii lii la yow kii la lële lii la kii du loolu bro. jere du soose jeere pël la si soose la dee wëy mhm. yaa ngi dégg soo loolu lu mit bro ñun ñëpp benn lañ Gambia benn lañ attaque attaque la la wax su ma ko woyee people maa ngi jóg ñun suñ maam yi ñoo bokka attaque yaayam maybe mu maa seetaan ñun ñëpp ngumbo gay mooy suñ maam yaa ngi dégg attaque su ma rakk la SD bañu ma ko bañu ma ko tey bañu ma ko suba bañu ma ko suba ay souhaitu di holy quran naka la ko bañé gambien musicien ñom ñep musicien la la mota ma wara bañ ki buga ki mhm. bañu ma len bro way gambien dañu wara understand kuy make content kuy pour affaire yi ja amona jamono fi dama de nek fi di ton jisul jisul di ma bindal di ma ay love sign way boy bi every day daf ma doon saaga waaye moom xamul ne moom every time su mu ma sen love sign hola aduna de mom xamul ne gisul su ma la way mom mu ma gënal video rek nii nga dee def gisul nii nga dee def gisul fekk man maa ngi écrire pour like jisul musique bi gën a dem man yooyu laa ne dama lay ñëw man ah gisul yow defuloo fi tus defuloo fi dara yow ah Sofia loolu la nii nii nii nii pam rek vidéo bi dem viral gisul fan si ñëw di saaga di saaga di saaga di saaga di saaga. bro fekk yow koy yaa maa saaga ngir koo xam ne sax kooku mu maa seen lof maa moom ñu ngi kaf ñu ngi faw ñu ngi ree moom xam na man suma content xam na man la laa def waaye Gambien mi dundee nanda loolu ñoom lu nekk di tekki personnel. at the end bu jusur boobu ñëwee man nañoo xool booy Badou dama bala ma nataaloo moom esti booy Badou dama bala ma nataaloo moom e yow kay fans nga kay yaa ngi saaga ngir kooku kay bu ma ñaan nga ma may ma may la nga nataaloo moom bro yow fans nga mm-hmm. demal nga nataaloo moom yow bul ñëw si man yaa understand waaye mm-hmm. gambien bi ñoom ñooy ñoom dañ understand ñoom dañ bugga comme yow nga like nit by force man Babou Kouyaté dama ko war like by force su ma ko likeul rek man racist la su ma ko likeul man fake la man pretend la bro ana by force is it, is it by force to like somebody I don't tire now is it no. by force to like somebody it's not no. by force to like somebody bro Why Gambia bi ñoo mënta accept loolu Ki ah. support ki kii la support comme wax nga fi loo is very important te dinaa ko waxati euh, comme tribalism ah, ñu nyari euh, ñaari yëf mu ngi Gambia mo nekk uh, tribalism ak affaire region bi nii mhm. comme man personally uh, mm. man suma platform kenn du fa ñëw nga faa def yi tribe because man benn man suma yaay olof la suma papa soose la suma maam bu jigéen la suma jabar pël la so man yep la laal so mota na Gambia ñun Gambia dafa tuuti trop ku nekk dafa boka so ku use xelam bi sa doo boole you travel te su ñëwee si music man I don't owe I don't owe nobody explanation bro man man owe explanation su ñëwee si music uh, music ni ku nekk am na pour support anywhere te yéen na saay tamit ñoo xam ne xamuñ because man wax naa ko ñi di waa ay bifini bif man personally man I love it mm-hmm. man dama bëgg gaay di bifante every day mm-hmm. because so xamee music industry bi di nga is good mm-hmm. understand nga loolu dafa jaay artist bi dafa yobu artist bi si kanam dafa yobu Gambian music bi si kanam waaye balaa ñoo lifin eh, si loolu ban gaay lay ay choose gaay yi ok bala maa lifin dinaa la laajte benn question ci affaire music Badou Gambian music bi eh, because doo ñëw fii ba dem laajte wala lool Gambian music bi lan naka nga ko gisee mu ngi dem si kanam ndax ba léegi mu ngi dellu gannaaw. Gambian music ku demul si kanam rek xamal ne yow you are just eh, xaw ma naka laa ko wee yow you just chicken head Gambian music is going is bouncing mu ngi dugga mu ngi dem fu nekk Gambian music people ñu ngi koo xam. Gambian music, they are doing big. They are traveling. Achievement bu gisul this. This will be mu def at So soo waaye <laughs> ñu bëri duñ ko understand nag waaye jeere dafa def loo xam ne Gambian music high high bro second Gambian artist ku perform si Summer Jam So type, so type Google everything Now la everything lépp a nga fa so moom dafa def loo xam ne te put dafa ñëw in represent Gambia bro Gambia lam nekati represent nekoti represent ki fancy ki fancy kele bro he was representing Gambia demba demba la dem perform Lord Mayor bu Oslo yéen ngi gis picture everywhere ñu ngi ñu ngi sàkkule yeah maa ngi follow maa ngi follow bu baax mhm. yeah ST and uh, ST and attack they are also doing big in England xam nga ñu ngi dem ay Manchester di touch, toj dada ñëwoon na fii toj fii and things like that bro gaa ñu ngi try gaa ngi over try Gambian music is going ñoo xam ne borom xel yi yoo xam ne ndox moo fa nekk ñooñu nanda nañ waaye moo sukkari ñoo xam ne comme lay xamu xamuñ dara ñooñu ñun rek ñooy toog ñu ne Gambian music nekkul dem moo tax farfarloo bu ngay nekk def nii ñoom xamuñ ne lu ñoo def nii ñoom nekkul di support Gambian music bàyyi leen bro bàyyi leen gaay booy bro ñoom suñu amee gaay seen ay mbir na gaay def gaay seen mbir waaye ñoom at the end su gaay wiinee luñ dee wax Gambia bro a are winning for Gambia ñoom lu ñoo def yépp Gambia la ñun ñoo yuwu yuuni yeb st jisul st attack kan, st bro st su wine grammy award wone dis grammy award isu for fan daf lan gambia gambia ya yeah. jisul su tawé ci stage lum de wa gambia scorpion from gambia not scorpion from scorpion kingdom scorpion nine ñom ñep ku nekk da nga am sa ay nit waye they are representing gambia bro ñom ñep gambia lañ fi nekkal football match bu amé gambia yeb suma graw lañ di nekk may nekk fi di jogante sénégalais no bro I'm really happy about you bro lu tax duñ ma dee xam ne comme man fan si daan kene laa Gambien bi si boppam moo neexut a demal waaye Gambien si boppam musiciens yi they are doing big and they are trying ñu ngi over try waaye na gars yi bàyyi affaire yi xeet ay nit ñi ay dugg na fële jaar na fële bro loolu mooy tax affaire yi di dellu gannaaw you know adiyeen soo buggee def dara sa promoter suñ buggee def dara sax duñu xam naka lañ koo defee. ok di nga ñëw euh, ok Badou euh, comme man jësul di big respect to him ah, te mu ngi def man maa ngi tey laa doon jóge seetaan vidéo semi ak photo yi. mu ngi yóbbu mu ngi Gambian music to another level ak ah, mm. so big respect to him. xam mm. ah, nga man music bi moom boobu moom dama si bugg dem waaw mu ngi play Stuttgart ñu ngi ku you understand. Let mm -hmm. everybody come out and support this will move you on nine Dream City. I will be there myself. Badu no stress. Uncle Bombos. Nyole nyo amko. Yeah man. <clears throat> okay, but the final question be bala ñu bëgg exit egg request man But bala ñoo muna yaga. rek final question be badu. Luma ma bëgg Gambia What be the bari si internet be? Gambia mu ngi sonna Gambian yaa ngi sonna deportation yaa ngi dem uh, dama ko bëgga rek nga generalize ko rek mm-hmm. situation yi Gambia mm-hmm. nak nga ko mën a comme about deportation ak everything mm-hmm. ah bro man deportation moom yàgg naa ko xee yoo xam nga loolu sax I know yeah man deportation da yàgg naa ko xee bro du tey bro because man man luma suma su ma dee ama victime ñom dañ defoon man leen dipot waye man leen dipot ño xam suma ma ay way leen suma ay xarit leen xam nga nit ki suñ dipotoon sa baay mbala ñu dipot sa ndey rek do xam lu muy mbala ñu dipot sa family member man su su su ci si dama dama ko dé fiil ya understand mhm. am na last time kuma wa ne mu ne mané ne yow la ci protest bi du gëna a fële jaar gisun la ma ci protest bi da waye gis ngeen ay nit ño xam ne man ma lay yebal ñu ñoo si protest bi man ma tagay ñëw because man dama si def video dama si wax dama def everything Ya, yeah, understand waye man suma laameñ la yor taxaw di fight because man dama xamne suma platform bi mhm. nekkut platform for only Badou gay platform bi pour Gambien yi nekk jaruma ko sax waye man bu nit gene aduna yalla na gay gars si man la gay di daw si Badou gay amu ni ni ma def post video suma nit yu baax America things like that gene man American yi suma waye lañ de angale itam fat fat gay ñu ne ma sen ma account sen account repam gay dugal so man suma account pour lool la so suma gisé domi gambien buy trox so soxla ko am kidney failure and things like man I've been doing things more than sometimes suma gisé gambien di def dama dee because man suma page bi dafa am jëriñ bro man suma page bi dama fi def man suma page bi dama fi def lu bari lo xamné ay nit ñu ci tek seen bëtt ay nit ñu feebar ma dugal leen suma page bi gaay dem government bi gis ko ay nit yu gaañu yalla na yalla xare aja ma defal leen video fat fat ñu delloo leen gambé seen family di ma call di ma ñaanal bro man dama am ñaan bama ma ko xamal suma bopa su ma ko nit waxul sama ko xam moo tax man I don't compete with kids du ma dee compete xale yi soo man mun nga maa wax lu nekk dama la dee xool ree moo ma dee jàpp because dama xam ne man dama defal ay nit loo xam ne ñaan boobu daf maa toppa ba ma dee suma booy yëpp suma gang bi yëpp yaa understand ak nit yu baax yu ma dee jàppale yëpp TikTok daf ma créatal connection su ma solo woon baax léegi-léegi billaahi wallaahi talay man maa du dama rus man su ma solo woon baax am naa ay nit yoo xam ne su ma leen koolee billaahi wallaahi talay ñu péepal ma xaalis xaalis laa la wax de kool mm-hmm. le kool ma ne leen dama soxla dara billahi ñu pépal ma xaalis. Mm-hmm. waaye gor gor du ñaan man du dee ñaan wallahi lazim waaye dama gis mu soxla ma dem si gars yi yaagu dara dara dara dara maakamba bu ngeen di dégg maakamba maakamba maakamba su ma benn sista bu nekk Amérique moo ko yónnee four hundred dollars. la ko yónnee four mm-hmm. am lépp. four hundred dollars boobu noonu su ko dugaloon suma account <laughs> Mm. no want to dëgg it. I know. Mm. so man mother, sometimes people don't understand bro try and have connection man the am connection man dama am I need yoo have Me, I borrow alal lañ man awma alal de waaye ñoom dañu am alal waaye seen alal pour ñoom la du pour man yaa understand so mm. déportation bi bro déportation bi boy, ñoom barola, la lawyer dabo. Send seen jamono la guy sign little du Why Gambian gambien they mm-hmm. call a spade a spade They call a spade a dagger. I'm gonna give you a dagger. There's a mm-hmm. dagger and there's a spade spade mooy pel, daga mooy beneen bi yaa understand let us mm-hmm. call a spade a spade this deportation has been signed since my party since lawyer Dabo mm-hmm. deportation bangi am ñoom ñoo ko sign ñoo ko kurukara ñoomi neen la ñoo ko sign mm-hmm. understand so bu guys yi deportation bi ñun ñëpp xam nañ nu mu fa dee demee waaye gaa yi duñ dee dëgg Gambien bi moom daf dee far ba di fen man loo moo tax du ma dee bugg a xuus du ma dee di waxaa gars comme nii du ma dee ñun dañu xam nu fa demee bro vidéo yi ñu ko amee vidéo yi yàgga yi vice président boobu noonu doon wax loolu yëpp ñu ko amee but because of you love somebody that's why you don't want to say the truth that's not badu gay. if you love me love me if you hate me hate me no problem you don't pay my bills this is me man du la dee faale uh-huh. fayloo suma luwaas man duma lay faalé sa yaay duma lay faalé sa baye suma wax dëgg dama la wax dëgg su la né méré ma blog ma loya dabo and all of them all of them in their regime that possession bu ko don say ñom ñep seen kanam la xam ñu fa démé waye gaay yi dañ di jël yëpp diko ko baro kessé du baro dé it's not adama baro dé it's all of them deposition du am gaay yi di deposition boy di deposition boy, di depot boy, di depot boy, nga ñaata boy la gaay yi man 2017 mooy suma first time ma dem Gambia si leen deport suma boy bi Mohamed jamono booba naa daabo ne ko fa mm-hmm. bro let us call respect, respect. a spade ñun ñëpp ay Gambien leen duñu ay xale. waaye léegi la mm-hmm. deportation bi a so si la mm-hmm. gars yi deport boy. nag te Adama Baro, dafa war def stop about this because bro boy, maire yi den soona Gambia de. maire yi den soona Gambia ñu ngee torox Gambia bro Gambia so amee nit ku tukki rek nga dee xam waaye Gambia people are suffering bro you know so seen doom yi ñoo fi nekk booy bro Boy, nekkul ñëpp a dee jaay am na booy yu fi nekk jaayuñ tay jaayuñ dara ñu ngi gëm seen boppa di liggéey man xam naa ay booy Stuttgart everywhere Boy, tay sa duñ ko jege même ñuy jógee tay sa ñu ngi am gaay seen liggéey ñu ngi liggéey seen liggéey gaay taluñ kenn yaa understand because fi ku nekk nekkal si loo nekk rek bu lijjante lu si keneen nekk waaye they are deporting people bro for no reason and these people they don't do shit defuñ dara dara dara dara lu rek dama ma bugg ñëw fii teral suma yaay bro ku ñëw pour mhm. teral yaayam nak adam baro mom doomam ñu fi Europe ñu ngi duga mhm. ñom ñep seen doom ñu ngi indion let us put politics apart waye ñom seen doom ñoo nekk di indion ñun doomi baadoo lay leen nekk di port Gambia yow suñ la dipotee Gambia fekk yow sa yaay yow la yaakaar deewlo bro da nga sona moo tax loolu every Gambian ñoo ko let us take out different fini. Badugay is this Badugay that ne different bi neen ko teg fële ñu fight together deportation bi dafa yaga te ñun gambien ñun ñoo wara join hand together pour ñu stop li. so man loolu rek la am lu ma si wax ok euh, ban euh, first thing lu ma njëkk wari isi thank you very much la euh, laajte yep nag ñeneen ni tamit ñu ma sen question ni su ma ko nu ma ko ko ngeen bal ma Uh, because duñ mën a lacce bu badu message yi bari na to mënuma lifin yëpp waaye di lay waaw so ma bàyyi moo ma lifin ñi eh Gaza Hey, eh, big bro, thank you very much. Gaza nañ la bu baax Fenala, fenala, Gaza sa waa ji nag ñu mën a wax si moom tey Suma waji. Ah, bro, suma waji borom xol bu set la de. yeah yeah yeah yeah soo soo déggee nga ko mere da nga nekkutaa moom benn place wala da nga ko xam mm-hmm. mm-hmm. di wax waxi jàmbur di dugg si business yi jàmbur you know foo ko fekk ak kafre mm-hmm. you know suñ nekkee ñun booy badu sa man su ma stressé sax badu du dee feel comfortable su nii taxaw dafa ma dee booy doo firi sa kanam bi nag booy lu xew you know booy yaa ngi cool you know du dee bugg a nit yi nekk si xam nga rek bad vibes ak yooyu noonu façon nit doomi aadama boobu la you know te li ma laa wax nii tam si suma xol bi la jógee bro bilaay walaay talaay. I know I know borom baax la bro man munu maa wax sax ah. borom baax la. man yal na yàlla ah, musal ko si seytaane daal. amiin amiin amiin amiin. yaa baax yaa yow tamit yaa baax meen ah. waaye ah, meen ne kuy wax sa baaxaay morom yow yaa baax. borom baax so star nga yow tamit star nga yow tamit. maa yaa ngi seen jooy bi laa jooyloo sala yaa mun a fen. <laughs> es é mala Isala. Es divasina más nuevo. zayafik fake. É, Babu. Veste o vesti. Desce lá. Vamos, <laughs> baby. Eu sabe. É, divas. Vamos, Milhade. Divas e Milhade. Milhade, Dorão. Bob, saudade. Mulher, vai, Joedi. Divas, Uh, Homa lo ilaka na sote wa mandinko. No, I Lanya think I'm just gonna speak. I just, I, I am just gonna take it in English. muna Wa si Waalaikumsalam. sisa best TV ni. Um, yeah. Um, let me start with from come. I'm gonna speak English Mapo ke everyone is gonna understand me. I knew Yora ya Badu ka. Yo muna da through mutane, bés don't déglu nga mute. you yow soo bëggee tëdd dama nga tëdd man naa ko dem jëli jox ma moto five in next five minutes rek Badou dinaa pare. um, I I knew about through um, social media actually. Okay, I'm not from Gambia or anything like that. It's been like what three years now, four years. It hasn't been there forever, but it feels like forever mm-hmm. because mm. Badu is a person that come when he if he likes you, he likes you. If he's with you, he's with you. If he's not with you, he will not hate, but he will just put you aside, if you guys get me. Um, and since that day, I love him because of the anti stress that he gave me. Me as a, sing, as a single mother, everyone is it's it's crazy in Europe. But Badu makes me laugh in the train, at work, when I have a bad day, when I'm stressed. Like I every day I have to go and watch Badu's page because he's my or oh, I even call him on WhatsApp, or I will send him voice, and he just hearing his voice makes me smile. So when he gives me to get select money vesti vesti. That's how he make me. He make me feel like sixteen. He's like vesti vesti. You know, um, he's just amazing. He's a positive vibe, and the reason why I love him is because of the way he take care of his mother and his younger sister Hendege, the love he has for his family. Nobuko, Rusuko, like that's his pride, his family. Mm. And his friends, I gather, um, Jack, man. yeah, so no matter what, wherever we are life, he will always show us love. He will always show that this is my people. If I don't talk with Badu for a month, it doesn't matter. When I do speak to him, it's like we spoke yesterday. So, Badu, I love you from the bottom of my heart. And I want you to say that no matter what in life, keep being you, keep doing you. Don't make me cry, please. Just be do be you, do you, and I love you. And I'm happy that I got the chance to meet you in life. I'm blushing. You're making me blush. you borom baax nga nag sa xol will be the first. indi indi nga ñëpp jaama Come, I don't I don't see why anyone would hate you I don't understand for anyone why dama dama gis ne comme like if you don't know people if you don't know the person then you don't know the person. That's all. Get to know the person before you but judge. Let me get me. I'm drinking my juice. Sui sui sui. Ah, man gang tamit. gang gang That's the respect you give me. ana ana diva si loo nekka ah? baabu may ma sa yaay minute rek man ma wax dem suma connection bi foofu moo tax ndey jërëjëf ndey thank you so ok ok bon waxal ma ne waaw ma ne ma ne suma connection bi moo baaxut suma connection bi connection baa baaxut soo léegi ma ne xaaral ma wax tuuti rek balaa ma dem ah dégg naa ne ñu ne suma yaay taggat na ko nag waaye man loolu fekkuma fi waaye wax dëgg dëgg neex yàlla man moom lu ma xam si moom nag comme nekku de dama bokkaa moom ndeyaa bàyyi wala hérité Mhm. Badou dafa nekk nit koo xam ne nit ku baax la nit ku am kóllëre la nag ba pare am ngor nit façon boobu noonu la man daf ma bugg a bugg man xam naa ko daf ma bugg ba nga xam ne ne man dama dee foog ne ne sax daf ma ragal comme suma ñoom yaay dañ ma dee wax ne ne ah badu moom xam nga xamut yàlla waaye xam na ndey ñëpp den dee wax loolu fekk nekku ne dama ko ragal daf ma ragal de xeex neen ñamante neen dóor na ma ba néewil suma gémmiñ ñi xam nga ñu defante ba mu saf waa defante waa defante ba mu saf waaye dëgg bi laay wax rek mu nekk nit koo xam ne tamit broda bu baax la si man tamit yaay understand because dëgg la daf ma dee dog moom daf ma dee dog moom xam na ne man TikTok bi fii kenn gënumaa uppale problème man suma yaram yëpp safara la waye mhm. dafa ma dee dog all the time di ma won defal ni defal ni le bul def ni holal bul jaar fi waxal li bul wax le ndey moytul ni. every time lu nekk lu bëri so gisee mako daw si TikTok bi yep affaire am motax because dama xam ne ne daf fi am lu set lo xam ne nit ñi den ko respecté so man duma ñew diko ko ko yaaxal loolu mhm. ma dee daw lu beuri may bañ lu beuri si souf la dee nekk di defat defat defat. waye duma fa dox dara daraay daraay seytaane wala daraay problème so ba du moo mhm. nekk nit ko xam ne daf ma bëgg a façon bëgg bo xam bëgg bi do ko de mën wax nonu nonu family bi yeb xamne lolu nonu waaw ne daf ma bëgga mënoon na wax ne ne nday suma rakala mu ngi confortable mu ngi oké duma defaral dara waye suma strané sax man togn ko sax wax ko ne ko ne badu badu defaral ma li badu defaral ma li daf ko def because holut luma am ak luma so man ko ñaana si choono bu ma ko ni tiktok bi ni choono bi yeb man la yeb man la nga am tiire Diop seconde yépp man la soo coono bu ma ko dugal nii tey ba nga xam ne ne man tamit coono bi maa moom ñoo ko bokk because léegi amatuma suma own xam nga rek suma personal space nga xam ne damaa dox si mbedd bi nu mu ma neexee moom tam coono boobu moo ma ko teg bi waaye nag liggéeyam bu set la ak bu rafet soo maa ngi ko mhm, ñaanal en mhm. tant que magaaraka yàlla fu jublu yal na fa yiwu yàlla jublu te ku koy xool si lu ñaaw rek yal na nga si jiitu si barke yaara bi maa jërë jëf maa ngi dem seetaan kaa am na. man maa ngi kaa asos. jërëjëf ndey na. ma wax ma wax jërëjëf jërëjëf. Eh, ndeysaan loolu loolu dafa ne eh, nga am eh, ay mbokk di la seede sa friends yi sa everybody so lii dafa neex trop waaye ñu mun a am uus well, I was about to go, bro. I'm I'm so hell after my wow, wow, I'm telling wow, you. Okay, you you go on to go to the but we need to go to Mhm. Mana ko bulat. Sui. Sui. Sui sui sui sui. Bro, baru ge baru ge semua wala, baru ge dipi game la ko ham. Mo ko hamen ko si video fi video club last film mom ham na ham. Arms, arms, arms, arms. <laughs> No, haman teren. Ah, Ku ne kala fa mo hamen sa wala. Blue film la mo, blue film, blue film. Blue film. Time bobu nonu. waaye borom baax la moom laa gi si booy yi bu ma ñëwee TikTok es moom moo introduce si TikTok bi nag moom ma force. man laaj moom because dama nekkoon di ko xam ne man dama tàng léegi dama dugg TikTok sama gis nga saagante ndey sa léegi sama xol bi mer te xaw ma leen sax waaye moom ba duggee moom moo may fit moo may fit maa ngi si TikTok def i live te ba mu mën naan léegoo léegi sax dañuy wax si suuf si WhatsApp bi lu ñu war a dégg la man maanaam moom léegi daf di tàng jir waaye dañ di understand moom dafa am understand mu teg sa suram la booy fàttali mu ngi cool xam nga ma understand ko suñu nekk ab benn xam nga man daal maa ngi koo sant booy di ko gërëm because moo tax mhm. boo yëpp ñu am connexion bi xam nga ñu nekk ab benn ñu ngi gisante ñu ngi dem fu ñu ne xam nga bro Jack mu ne nga jël ko dafa bëgg a wax dara Jack Jack jël naa ko waaye dem de xamoon lu xew xamoon dafa fekk mu expire xaw waaye baabu lu ma la doon wax ko eh, Willy Ngara foofu laa maagee foofu everything commissioner mu ngi nii si biir suma boy ba ngay tok suma suma suma boor Buba sisi and these are my, these are my people these are my family komi keep my bor mm -hmm. name it pour ñom ñep boy yep. bayuma kenn suma uncle you understand passé ni you know ñoo xam ñoo bëri ba ñoo xam ñoo ñoo bari nak yow ene mo bari boy these are my these are my these are my people from day one bala dara don dara alaykum assalam wa alaykum assalam yeah. man dama ñëw rek am Waaw ah, maa la ñoo nuyu waaye di la ñoo ziar. ñu man. Yeah, bro man moom dama bëggoon a wax si oncle Badou. you know. di nga ne yàlla nag borom baax la you know and he's very caring you know. But you know Jeff ne and na Sweden fii dem naa foofu ak boy yëpp you know but he's very caring you know Badou dafa them when it comes to party mun na moo talk time party is free eh. and he's very hardworking, you know Actually. understand Badou dafaa dem liggéeyi sax nekk yaa ngi si këram mu kóol la nda ku lekk nga wala def nga you know di la lijjante xool si li nga nekk you xam da yaa ngi ok daal you know waaye su paree pour pati moom dina pati ba pati fu mu em waaye su paree when it comes liggéey ak juleem loolu du ko dee musa terde you know mun na moo toog na moo def mun na kaf lu nekk mun na koo def waaye pour mu toppatoo doomi aadama bi nga xam ne mu ngi at moom you know def ak liggéeyam you ak julli moom loolu moom seede naa ko si moom waaye caga bu mag la dafa bëgg nampa torop <laughs> jërë ngeen jëf thank you very much thank you uh, uh, us us ñu ñu waat ñu ñu waat tuuti mu gaaw ku nekk na lifin wa ay eh, one one minute or two minutes rek ñu ñu mun a lifin ba uh, ñu mun a waaw babu, man maa lay definitely yow oh, yang yal na la yàlla sa taxawaay bi because yo definitely yo yang ngi boleh Sénégambia bi nekk so yang na la yàlla taxaw si loolu bu ni definitely foog nu gërëm la you know Thank you. maa ngi Gaza di ñëw Diva Dalin, nama naa baby baby so badu lu ma am fu yokkal eh, ko because yaa ngi ko laaj benn question bu am solo so foog naa bu badu dan war a silo silulu. because gis nga soo demee ba takka jabar su loo nekk war nga ko mën continuer make sure nga takka koo xam ne dina la dina la bëgg su loo nekk because entertain boy entertain nit ñi ñu bëri ñu ngi feel happy understand nga am na yeneen vidéo yoo xam ne nit yi su ko seetaanee seen stress dafa less hmm. so bu ne da ngaa dem ba sëy nga bëgg a bay tiktok bi man boor boobu dama bëgg nga bay si xel bu baax ñaan naa la ngir yàlla let takkal koo xam ne la understand dina la fekk su loo nekk mu demaa yow you know loolu naa amoon ko bëgg la yokkal uh, uh, ma nga strokes it's not easy but da try you know sa level best you know lulu na moom pour yokkal la si you know te borom baax la nag hard working guy la definitely you know mm-hmm. keep it up yaa boobu nekk na ko Badou thank you so much man appreciate naa ko trop waa Badou la yàlla tax. na ko pour muy leer. diva yow nañ jokkoo si kanam yow daal. yow ba léegi kóoluloo ma yaa may daalin daalin booy kóol naa la naa la kóol. waaw sama bro maa ngi leen siyaare. ah ñu ngi laa fay man. ma ne ko man waaw yow lay tàmbalee sax di la sant di la gërëm si liggéey bu rafet booy def. Mm-hmm. Eh, dama dee déglu news yoo dee def eh, lu nga xam ne mu ngi xappun Gambia. Mm-hmm. muy lu am solo. man nag eh, badu maa ngi ko xamee si Tidiane Kebe man la laa tudd Ayman la ma àdduna xamee Ayman Bijulo. man maay mhm. ji Tidiane bi Tidiane Kebe. ah Tidiane mera Tidiane Tidiane Tidiane boxkat. waaw waaw waaw man maay koojam bi. ma ko dëgg man dëgg la man dëgg la man. depuis Gambie laa ko waaw maa ko amee depuis Gambia ñu jógee Gambia dem Italie ñu jógee itali ñëw Norway ñu jógee Norway eh, dem Germany jógee Germany ñu am contract Sweden. gannaaw gannaaw gannaaw suma waay la kii. waaw. waaw waaw foofu la. waaw foofu laa la xamee nag tàmbale di la toppa ngay def liggéey bu rafet. Hmm. yoo mu am benn wax boo doon wax. mu am benn bu wax boo doon wax ma ko seetaan mbiri mbur yu nga xam ne ni ñu ngi demoon Gambia mhm. ñun doomi Gambian lañ Tijaan Kebe dafa win title WBO one of the biggest title highest title mhm. ñu ñu am appointment pour war a dem gisante eh, président bi aadama Barrow ñu mhm. waxtaan d'accord lépp ñu jëndal suñ ticket jënd suñ ticket dem ba Gambie gisante wu ñoo moom ba ñib si. ko gis. te dañu waxtaan ak ñoom. ñun taytul lañ wiin. léegi ñu nga xam ne nii duñ doom duñ doomi Gambien bàyyeeku wuñ Gambie dem nga xam ne duñ am appointment sax ñun lan laat ñun. moo taxoon nag. lu <laughs> bari ma wàññi ko. aa man man man maa amee ma maa amee eh, Sweden fii nii Angared Boxing Club amul ku ko xamul ku nekk Sweden mm-hmm. one of the biggest club in Sweden mm-hmm. man si national team bi laa nekkoon di train maa ame woon di biggest club in Sweden fii yëpp Sweden ba Sweden daj maa ko amee woon mm-hmm. waaye day gis ne support bi ñu am moom lañ dut am moo tax bu ma gisee bro baabu muy def lu rafet ma ma tàmbale koo topp di déglu news di bugg a xam luy xew Gambia xoyantaan ñoo indi fii xoyantaan laas kombaayam bi after nga gis ne ko bi dañ ko ni special life boo xam ne dañoo man maa ko follow léegi léegi yaa yaa amee kunta mu waas tuuti den after nga gis lii dañ ko naa leen bàyyi yow yow dinañ la is waaye bul wari ko dañoo jaay Gambia rek ñu séddoo xaalis waaw maa ngi leen a nuyu bu baax di leen gërëm ne leen continuer leen waaw yéen a ngee def liggéey bu rafet daal jërë ngeen jëf thank you very much yow ko dinañ la am bul wari jërë ngeen jëf kontaan na trop jere jërë ngeen jëf waaw waaw jërëjëf jërëjëf ah, ah, waaw Babou Kuyaate maa ngi laa nuyu ñu ngi laa fay bu baax man yow suma oncle nga you know because bi macha allah. bro maa ngi rafetlu sa maa ngi rafetlu sa programme di nuyu Badu. bro bro yàlla. la wax ne Babou def rafet na trop. jërëjëf. te appreciate nañ ko. thank you. di nga di ndaw soo juddoo si place. ak loo fu génn a génn a génn a génn as sa xel mu ngi fa rek yaa ngi bay sa waar baax. Mm-hmm. Mm-hmm. man badu moo tax ma tok si tiktok bi <laughs> ma looy diga man mm-hmm. badu moo tax ma tok si tiktok bi yeah seriously badu mu ma encourage yu bëri maa ko nga def suma training mako post wala whatever entertainment bi man man tiktok rek man duma seetaan tele duma def nothing Why di lu gëna man important rek moo nekk ma sédel ko jukom wiñ ndjay ma maam jarbaat yu ba lu gën a am solo si moom lu mu gën a rafetlu dafa am yëg-yëgi doomu adama very te nit loolu mooy doomu aadama moo nekk yëg-yëg. mu nekk koo xam ne xolam bi dafa set. koo xam ne dafa julite. doomu adama loo ko seede seede seede ñaari waxuloo ko moo nekk yëg si doomu aadama ak julite seedaloo ko dara. Mm-hmm. te man mu nekk loo xam ne loolu laa nekk lu gis si moom. Mhm. man daf ma déggal ba daf ma déggal ba dama ko nekk di rus ak lu mu si suy def yenn yi sax su ma teg see si ron na ko ba du si tobal lii bro serious si waxaat. te the most important thing moo nekk doomu aadama yooyu def ñuy kontaan di happy man xam naa lu ma nekk di expliqué ñaata yoon laa ne day kool ba du ne bi dafa bugg a wala daaj bi dafa bugg a wala kii dafa bugg a man suma boppa dama over busy sa affaire because of the moment xam naa la rek everybody just trying to talk to you happiness boo leen day jox am na ku ma dégg mu wax ne soo amee jabar sax bul tax nga bàyyi bu doon bul musa xelaat sa looy def nga bàyyi ko because xam nga ñaata nit nga si ñoo ko jox happiness. non Dubai sax eh Dubai Dubai. especially man su ma stressé rek sa page bi daal di dugg straight. Bro, keep it up. Yana yalla defal jama, yalla mela fan ak wér. Amin, amin, amin, amin. yaa xam ko buga yana yalla bolé boole ak kooku ngeen juboo amin amin amin amin amen xam nga borom bax nga yana yalla fay badu ku am respect nga badu yana yalla fay man respect bu ma jox dama la ko seede aduna yépp ñu dégg ko am so much part of you brother ah. ah. wana nga dem terminal ba dem nga diga billahi babu babu dinaa la topa bu baax ba baax nga Ocupa, ocupa, ocupa. No, but, but Okay, Islam alaikum Smagari. Um, bro, thanks, thanks, thanks for bringing him here because you know this is something that we need, like Hamna, mm mm-hmm. um, especially talking about Gambia. Hamna, then let they, then la day, gawa discourage law. Mom, he's a fighter. He's a fighter. He's, I mean, he's he, he's a fighter to um because Hammer, Manlola Kodewa always, we are very close, we are calling, we are talking almost every day. Hammer. Not everybody can, not everybody will see what you are doing in a positive way. Yo, how many people are you making happy in a day? Hammer, you xam ne sax they are like uh, it's like ma ne ko yow gis you can see the example onto your own self. How many followers do you have? And people are still mm -hmm. following because they love what you are doing. Mm -hmm. but if they don't love what you are, you are doing, they won't follow. Exactly. Mm-hmm. So hang on, the, the, the, less people, the less people that are talking bad yeah. and that are trying to put you down, don't concentrate on them, forget them, and then move on with your uh, move on because you are entertaining a lot of people I mean, your te ma ne di def is the hardest thing that one could one could say because mm-hmm. xam don't me aadama mu am stress mu am problem am nga reeloo ko ma ne is you know not everybody can do it mm. so yàlla su la joxee talent bobo. yàlla yàlla jox la that time to do me personally I can do it My mom then they génne as well. ni ñëpp time. mi a lot of people will tell me like yow moom nga nekk si internet bi like to be on live is better than seeing you facially because man dama am a shy person. Mm-hmm. but mom he is into everyone he is into everyone that that for sure. So yow tamit thanks thanks for inviting him here to tell the world who he is and where he started and this is what we say Gambia. This is Gambia. We push. We push. We, we push one another. And bro, when man, benali regla am lumon pulumala amoy. Man luan na kaso na heh nang gulo nang purmuta ka jabar. Man man sir, mayor bi jol na ma complain bobu nak. Suma brother, suma suma harit yi ñep ñu ma te gis nga bu ma don tak bu ma don tak jabar. He was one of my advisors. Man daf ma di advice

in all my friends. He's the most funny. Sometimes the most dominated video. Man, no, this is the guy that this is not someone that I know. So there was a time like uh, there is one of his video from the one uh, from from like um, from I mean from done this the video. The guy you go Nigerian you go saga the the the boy is new president. <laughs> no, I'm talking now. Why you now they put my president for this mother? This mother now here. <laughs> So what's oh, the message that sometimes I will download this video, come go have them. what's wrong? my problem? This is how he is. Put did you say the man get them thing?